ملكني ما لم يقيه عني وقال لي بقاؤه بالمن كلامتي كتاب ومن رفعني به إلى الجنان مصطفاني ci waataayu guddik sëñ touba gi ñu dëgmal nekki gannaaw suba muy guddi gi mu ñibbisee ci këram gii fi Touba seti cheikh Mouhamadul Moustapha yi ci ndigalal cheikh Sidi al Muxtaar ak cheikh Ahmadul Muxtaar ñu woo mboolem bokk yi ak taalibe yi ci waxtaan wu gàtt ci guddi tey gii ngir waajale ko bis boo bii di guddi gu sell gu tedd goog yi nga xam ne ci la leer gu mag googee ñibbi see Tuuba fa tabaarakallaahu mel ne wuy si gi yàlla suñ borom dogal na ko ci géeye ba léegi bokk yaa ngi ñëw sëti sëriñ Tuubaa yi ñu ngi ñëw waaye cheikh si ñu ngi ñëw bokki taalib yi ñu ngi ñëw mën a jaar ba àgg ci ñi mu jaboote ñëpp te ña jiitu di ñi bokkal xaadima rasuul ca la laan jàll itam ay message am muy ay ndigalam léegi nag barkeelu ca loola ak dundal sunna soosu moo waral e, ñi nga xam ne ñooy ay xalifaam yi ko wuutu maanaa sunnaal jataay bii ñuy amal ci guddi gi ndajale fi bokk yi ak taalibe yi ngir def am njàngat ci dund ak liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak ñi mu ko àndal bisub tey bi nag tombe ak liggéey bu rëy boo xam ne mbooloo mi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci gëstu ko ak tasaare ko liggéey nañ ko muy téere bu màkk bu am solo boo xam ne def nañ ko ci dund ak liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Moustapha muy loo xam ne peeg na la ëpp solo ci dundam ak liggéeyam boo xam ne tey ku ci dellu ah lépp lu la réere woon ci jëm mujj baax jooju tey la ci ëpp lépp day da ca mën a am ab yóbbal téere boobu nag moom la ñu tànn tey lu war cee waxtaan ki nga xam ne moo ko war a def di sunu mbokk moo xam ne du kenn ku ñuy xamle ci barab bii ak ci ëtt bii muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop Cheikh Jëlëy moo nu wara a présenté bi bii nga xam ne tey dégg ngeen ni ko jili ba waxe mooy day wane Cheikh Mouhamadou Moustapha ni mu nekkee modèle nekke royukaay ci képp koo xam ne ab jullit nga wala képp ku bëgg lu baax loolee nag nan lañ ko mën a manargaale wala lii nga xam ne moom lañ dajale ci moom nan la mën a nan la mën a wanee loolu ba ku ciy delluwaat rek xam lu bari ci loolu ñu la wax loolu mooy li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou sa bëgg a jot waaye ngir jëkkante ak waxtu wi nag comme xam nañ ne waxtu wi li ci baree bari dem na te xam ngeen ne noo ngi ci waajtaayu bis bu màgg boobu loolu sax moo tax ñu doxale ko nii tànn bis boo xam ne tey dana am beneen bis bu ci jaar waaye jiwut mu xat la te kilifa yi xam ngeen ne am nañu ay lu bari lu nekk seen gannaaw ba tax na kon ñu jëkkante ak waxtu yi jox Serigne Moustapha mu tënkal ñu li nga xam ne rek dana xaj ci waxtu yi et incha allah kon Serigne Moustapha mbokki taalibe yi noo ngi yëkkati kàddu yi nuyoo yi gën sell fi noonu dina yóbbu lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu bëggoon a waxtaan ci moom dañuy jéggal moom itam rek ndax loolu rek suñ ci bëggoon a jël benn jukki rek ci wàllu siiraam mën naa jeexal jataay bi lépp waaye dañ cee bëgg jël benn tomb boo xam ne baaxoo nañ di ko tudd ci. kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaaroon te bàyyi fi ay jeexit yoo xam ne desatu ko fàtte ba mukk te li leen ko mayoon nag mooy li nga xam ne ci la sunu borom subhanahu wa taala tagge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu muy jikko ndax jikko kët dafa am solo lool te lu mat di bàyyi xel la ndax jaamu yàlla yi nu miin jikko ci jaamu yàlla jeuflante yi la bok waye jaamu yàlla yi nu min lu melne ke julli ak koor limuy bax bax su fekke dañ koy def ba te jikko yi rafetul ko da melne ke que su boobaa loola matul da melni sax dara nekatu fa gis nañ sunu borom subhanahu wa taala mi wax ci julli mo xamal nuy nañu ke julli deug deug da fay tere aji julli ji daf koy aar daf koy sam ba dootul defati lu ñaaw ci làmmiñam dootul defati lu ñaaw ci ay cëram inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar ni mu ko waxee ci alquranul karim te su fekke julli nak dem na ba deful loolu ci jamm su boba da melni ci julli ga jamm ba bàyyiwu ko xel deug deug kon dafa melni ke ni ko serigne bi di waxee rek te da daanañ ko julli wax ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax na ne wël yi yàlla yi nga xam ñoy yegg ci sunu borom subhanahu wa taala bu ñu jàpp mukk ne yem rek ci julli ak oor ak natt azaka ak yu ni mel bu ñu jàpp mukk ne yooyu dong moo leen yeggale fa yàlla waaye sàmmonte bu ñu ak teggiin yi seen diggante seen borom waaye seen diggante ak nit yi te sàmmonte ak teggiin yooyu kat balaa mën a am jikko nekk fa mu ne kon jikkoo koy def loolu moo tax mu ne loolu moo leen yeggale ci yàlla sëriñ bi wax ne wa saxa an al awliya al waasiliin ما وصلوا إلى إله العالمين بكثرة الأعمال كالصلاة وحج بيت الله والزكاة بل وصلوا إليه بالرعاية لجملة الآداب بالعناية وبالمراعاة لها ساد الورى لا بإدامة الجدال والمراء من سامون تكون سامون تأكيد teggin سين seen تأكيد لي لولو ñi loolu mooy li nga xam ne moo leen yeggale waaye doonul rek yam guñ yam ci julli ak woor ak yu ni mel kon loolu dafay firndeel solo si nga xam ne jik ko am na ko yonent bi gis kenn mas naa ñëw ci moom ci saxaaba yi di ko laaj ne ko dama bëggoon nga leeral ma ak mbaax mooy lan mu ne ko mbaax bi mbaax bi gépp mbaax nag gépp mbaax mbaax ba mbaax jeex daal mooy jikko ju rafet al al boobu muy alif gi ak lam gi mooy lépp mbaax nag mbaax ba mbaax jeex lépp daal mooy jikko ju kon jikko ju rafet mooy mbaax lépp te bokk na ci mas na wax ne bokk na ci lii ëpp lu muy dugal ëllëg àjjana ci ay bindeef moom jikko ju rafet kon dafa mel ni ki moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko sunu borom tàggee woon ci jikko ju rafet jooju te yeneen a nga fa woon yu baree bare suñu borom bindoon na ko ci taar boo xam ne yëmu ci ak kenn ni ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu net lee waaw koo xam ne mel lu kenn mu sa mel ni moom bind na ko itam ci yeneen xar baax yu bare bare bari waaye sunu borom bi muy tudd li mu koy taggee li mu ko taggee mooy jikko ju rafet jooju taggaat na ko weneen tagg woo xam ne dañ duggaat ci biir ju rafet ba tey muy nooy bi mu nooy mën a mu daaraan teg nit ñi mën a maslaa ak ñoom kon sëriñ bi itam bu ñuy wax ci moom mu Cheikh Mouhamadou Moustapha du ñu mën a bàyyi wet googu muy wetu jikko ju rafet xam nañ ne sunu borom bindoon la ko mu doon nit koo xam ne ku xerañ la ku muus te su ma waxee xerañ baatu ma mënees naa wax ne mooy nit ki lu kem kàttanam ba la muy def lépp méngoo ak war a nekk daanaka baatu xekma génnul lool la muy def lépp doon loo xam ne du jub kocc kocc lay doon dara bu ca dëng suy jëflanteeg nit di jëflante ba rafet lool suy wax kaddu ya rafet lool suy jëf-jëf ja rafet lool lépp lu muy def daal day rafet lool Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu borom bindoon na ko mu doon koo xam ne ku xerañoon la ci lépp suñu borom bindoon na ko itam seddoon na ko am xel lool te xel moom itam xam nañ ne mooy nit ndax euh, xel ak soldaaram boobu nga xam ne xel a koy commandé di ko muy làmmiñ manees naa wax ne ñaar ñooñu yoo ëpp solo ci nit na ko gone ga waxe woon Omar ibn Xataab radiyallahu anhu bu mu ñëwee mbooloo délégation bu fa ñëw ci Omar ibn Xataab bi ñëwee gisal gone gi gone gu ndaw ci ñoom seeni gët ngir mu waxal leen bi muy wax Omar ne ne waaw xanaa du kii ngeen di wax loo yéen ñi ñëpp mu leen woo kenn ci mag ñi mu wax waaye ca saasa mu dagg Omar daal ne ko yow kilifa jullit ñi xanaa dañ lay fàttali rek de suñ ko sañoon ne la euh, nit di du ndawee ci jëmm waaye la muy ndawe wala muy mage mooy ci xel ma ak làmmiñ ma su xel mi rafetee lan ñuy firdel ko rek su boba mag la ak lu mu tuuti tuuti mu ne ko al mar'u bi asgarayhi nit day ñaar yi gëna a tuuti ci mom muy xel bi ak lan wi ñaar yoy ñooy nit deug deug kon dafa mel ke lool liñ ci ciy dégg rek moy suñu borom joxon nako xel lool xel mo xamne ne ci la lijjanti àdduna li mu fi nek lépp defe na loolu mom itam ñi nekkon ak mom séréel nañ ko lool mom Cheikh mohammed mustafa lu muy lijjanti rek xel la koy lijjante danaa ci joxe seeras kenn rek mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu itam Serigne Saliou bi moo mu jege moo ko nekk liwaat mooy Serigne Saliou bi moom mu ne ma euh, guddi gi si Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu nee na ma booba sëñ Cheikh leew na mii la àndal ginnaaw bi itam laajaat naa ko sëñ na mu nang mu waxaat na loolee mu ne ma bi demee waxtaan nañ ci keroog daanaka ca la ca la ci Cheikh Moustapha muy waxtaan ci Cheikh Moussa ak doxin wu rafet ak melokaan wa nga na ci rak wax na ba wax ko ne ko Cheikh Moustapha de Saliou nek na ci ba jóge musta jefandiko baatin lu muy jefandiko lu nek ci xalam mu rafet ma rek la koy dawal nee na loolu Cheikh abdullah Ahad moko ko nek li moom sëñ Saliou wax ko itam tegal ko ci kàddu ga am solo nak ne ko xana da ngaa xamul ne baatin ak butiit ñoyam yem ak butiit ñoyam yem saga warul leen de gene waaw sangoor doon di génne mooy baatin noonu la baaxoo mooy karaama fi mu yegsee fi mu war a yegsee dëgg mooy foo xam ne dañuy dem ba aajo woo ko aajo woo ko ba mënut a ñàkk waaye wóorul rek di génn mel ni rek loo xam ne waxtu bu rek ma nga ca marché ba ñu koy jaay noonu la ko Cheikh Abdoulaye Mbacke nettalee moom la ko waxee keroog ne ko xanaa da ngaa xamul ne baatin ak outil ñoo yem sago warul li génn kon loolu itam day daal di wanewaat rek. xel mu rafet moom moom tamit du ma ci jéem a yaatal ndax waxtu yi mayewu ko waaye suñu borom seetal na ko xel mu rafet moo xam ne ci la lijjantee li mu fi nekk lépp ci lijjantee dox yi li nga xam ne moom la doon dox te doxin itam bu rafet la boo xam ne ñi ko jege ak ko sori ñëpp mën nañoo seera rafet naa ba na mu doon ko nooy waaye nag nooy ñi nga xam ne ñuy wut jàmm ku nooyoon la ci ñoom koo xam ne su nit ki rëccees bu fekkee daf daf koo rëcc mu wax lu mu doon itam du ko fa yonte ak moom te loolu ci jikko njiit la bokk kon ku nooyoon la koo xam ne ñi nga xam ne ñoom la séqal ak nooy de duñ xam ci moom gennum dëgër ci lépp loo la ne moom lañ séq ak moom waaye nag noonee mu nooye woon noonu la dëgëre woon ci genn wet ga mooy ku dëgër la ci ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir wutul safaan wala ñoo xam ne dañoo ñëw ngir fas yéene nappaaje lii nga xam ne mooy ndono li mu yokk loolu moom du ko jéggale mukk mukk mukk te loolu itam ba tey ji koy la ndax sunu borom subhanahu wa taala li muy tagg yonante wa sallam defe naa taggaat na ko ay doxinam ba tey ci ñaari melokaan yi ma wax léegi muy nooy googu ak dëgër googu ni mu ko waxee ci alquran muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala kuffar muy benn ñu tar lañ lool dëgër lool ci ñi nga xam ne yéefar yi suñuy jàmbaar la ak ñoom moo xam jàmbaar la ci ay kaddu la moo xam jàmbaar la ci ay ngànnaay la moo ci wet bu mën doon waaye nag ruhamaau baynahum noonu ñu dëgëre seen diggante ak yéefar yi noonu lañu amee ak cofeel ak yërmande ci seen diggante kon ñaari jikko yooyu